d'accord bëgg après pour ñu mën a bàyyi lépp mu sedd rek. d'accord kilifa gi nag euh, bëgg naa am également sa gis-gis ci li nga xamante ni euh, ki euh, fan yee ñu génn yëpp réew mi ñu ci bëri bëgg yëg nañ ko a travers xibaar yi nga xamante ni circulé na ci internet bi moom également ki nga xamante ni këram la wala boo kër bi nga xam way juróom bu góor fa la nekk mu ci ab live dëggal lu ñu mel muy Mollah Morgun di activiste ñu taal seen kër gi nga xamante ni mu nekk foofee ca Kaolack ba sax loole mën na jur yeneen i ndaxte Eh, ay nit mënoon nañ ci ñàkk seen bakkan yàlla nag def na ci jàmm ba kenn ñàkku seen bakkan donte nag am na perte eh, dégâts matériels yu bëri yi nga xamante ni eh, am na foofee ca kër ga. donc ci loolu yow nga ni Mollah moo taal këram foo teg loolu. dama ne la moo la gën a xam ne état ngi dox ci tànki jëlee koo Canada moom moo la gën a xam loolu xam nga bi mu xamee loolu moom Mollah Morgun il faut kon mu créer solution luy tax mu des ci réew ma donte dafa dugg ak nationalité beneen dëkk waaye pour gën a dëgëral toogaayam moom moo laa moo gën a am personne moom moo taxaw lu këram kaw la ba noppi nekk jiko ji ko jiñ général Moussa Fall pourtant yi la xam ne affaire dafa rax cuune bu ko jiñoon benn kër tariix day neex identifié ne affaire yi fen la mais boo ko tiimee général Moussa Fall boo ko tumaale du leer ndax amul jot yi naan lii nangam même bu dee ba xam ne kii moo santaane lii amul jot toog naan pourtant ki li may tuumaal dëgg de moom moo kër baayam waaye li ma la mën a wax mooy moom moo bëgg a victimiser wu moo taxalu kër baayam pour bëgg état bi état bu ñu mën a teg pour delloosi ko du réussir. mais jël naa ko fi émission mu ne euh, ay fan bi mu gisee ni am na ay nit yu yor seen kër di menacer li nga xamante ni moo di ay frères am yu mel. Euh, famille demoon nañu déposer plainte foofee ca Kaolack mais plainte boobu amul suite donc ñu bàyyi nag ba ñu taal seen kër demande nañ tamit également déposer plainte contre x sax jàpp na ni ko nga xamante ni moo taal kër boppam dina ci daj yooyu la coono yëpp. fii am na ñu fi def lu gën a garaaw mu la moo ndax xam taal këram yenoon na maanaa ci jamono yi ñu toll nii xam am na ñu fi gën a def lu gën a garaaw lu mu la moo gën a def am na fi ñu fi nekk di tooñ mosoo gis kuñ jéggi yow mi tooñ di dóor sa yaay wala sa dobal sa rakk te ñoom xam nañu ne moo la mër gën di amul dal si kër dama ne la Mollah gën moo bëgg am këyit Canada bañ état jëlee ko fa donte xam na ne gaa ngi ci ay tànkam mu santaane moom taal kër baayam jël image yi euh, pour am séjour carte euh, këyitu Canada xam ne ni bu gaa bëgg fexe andi ko muy leen gis ngeen sama waa kër ñu ngi koy taal ñu ngi leen taal te deew ma ma lañ dañaa bëgg a rey loolu boo ko waxee tubaab bi duñu la bàyyi nga ñibbi ndax dañoo respecté ak ak yéen def doomu aadama waaye li ma wax mooy général Moussa ak ñi ànd ak moom taxaluñ kër wala moo gën amul benn sénégalais bu ñu def enquête duñ jàpp kenn ci enquête bi moo la amul gën ci boppam moom moo taxalu seen kër loolu mooy dëkk ji. waaw mais fan nga teg loolu sëñ bi parce que nag dégg nañ ko tout le temps day def ay live di wax yenn kàddu yi mun na déranger certainement ñenn ñi mun nañ ko ci mere euh, ba tax ñu bëgg taal këram peut-être. nekku fi xam nañ ne mënuñu mënuñu jot ci moom ñu jéem a jot ci li nga xamante ne mooy famille la. dama wax na la. am na fi ñu fi def analyse yu gën a garaaw xam nga moo la morgue li muy def dèjà dafa ñëw ci suñ njëlbeen émission bi gis nga tey Moustapha Dramé buy doxaan penda nga am suñu foto man ak yow sax waroo ko siiwal ndax fi kenn ku ci nekk am nga luy nëbbu. waaw yàlla dafa bañ nga xam bàkkaaru jàmb noppi di ko vilipande loolu yëpp nag gannaaw bu taxu ñuy wax gépp ay kilifa ay gor di leen xas loolu amul kenn ku ko defal bu dee passé dama ne la man man ma man wóor na ma laa man Moustapha Dramé wóor na ma yàlla ma ne moo laa moor gën moo taxal kër baayam. waaw moo laa doon defal live sëñ bi. non ma am am problème yooyu. ni la fan nga teg loolu. nee na ay preuve nee na gindi na nee na nee nee na nee na nee na gis na AD marque oto AD yu taxaw ci côté kër gi. gendarmerie du ñu yor at matricule AD ñetti matricule ña la ñaar léegi dañoo yeewu. dangay am matricule oto gendarmerie wa ilaa ñu am matricule comme oto ñëpp ñu bokk recherche léegi oto la ko comme ñëpp am matricule comme oto Moustapha Dramé mënoo xam ne kii di bokk nangam oto AD police ak sapeur te même police bokk recherche léegi seen matricule oto yi duutu AD matricule nekk nangam nangam ak um de tuni ku moom dafay taal. dafa santaane pour ñu taal kër Papa Molamou Guèye ñun Sénégal yi gannaaw ñun amuñu xel te pourtant man de man sëñ bi am xel moo tax yàlla man fit bi am man man ci man moo ma jaaxal sëñ ah. yow ba toog fi sa kër fii xam ni moo la moo gën moo jéem a taal këram gee waa mais loolu la parce que Ousmane Ba dem na wuyu ji Molamou Guèye wax na leen ñeenti yoon état ngi préparé pour pour jëlee ko Canada mu am difficile léegi nag pour mu gën a léger nekk ci jàmm te xam ne état du bàyyi moo def loolu du benn si nara Moussa Fall da ko tuumaal tuuma nag neexu ci ab gor man tuumaal mu ko mais dëgg laa wax man. certainement plainte yi nga xamante ni jot na ko déposé danañ gën a leeral euh, lépp mbir parce que nag euh, suñu way takk dere danoo xarañ lool euh, ci mën ay enquête ndax taal kër mu lu doy waar la mun nga ca fekk nit daal di koy faat ak yu ni mel te maar day am donc sëñ bi nag ça a été un plaisir. recevoir la euh, le mot de la fin fan ngay tàggatoo liñ ci doon ci waxtu jeex na tàkk moom mbégte lool euh, jàkkaarloo ak yow. di nuyu euh, tous les corps militaires ak paramilitaires bon rawatina para dafa bu ñu bat para. xam nga mel na nag militaire say xarit lañ de. du ñu samay xarit. amul du mbokk <laughs> amul amul mbokk loolu nga wax te wax nga leer nañu nag su ñi bokk ay recherche yi amuñu mbokk amuñu xarit. lépp laa damay leen comprendre ba mu jox takk waaye nag am na fay classe na classe yu bokk ñuy recherche ñu nang waaye dama ne la bac para laa wax bâton de para mooy cas bi nekk caaro yi ñooñu laaw ñooñu dama leen di nuyu baax leen ziara sama classe yi fa nekk am na ku mu doon formé Dakar bànko kenn ci ñoom foofu la nekk seeti naa ko kerek mais dama fa dem. ah nekkoon nga militaire. ah mosoo xam loolu yow. mosuma ko xam de dama wax dëgg neex yàlla. def naa armée dañ maa libéré nii de. Hmm. dañ maa libéré mën a ku jaar toog nii. lu tax ñu libéré la. <laughs> xanaa da nga boo la non xam nga libéré armée libéré la. Hmm. dafay nekk contingent bi da ngeen am contingent la contingent. comme man ma nekk contingent deux mille treize une suñ contingent bi ñu nekk par exemple deux mille personnes état deux mille personnes yi man cent cinquante personnes laa si laa si mën a jël. Euh, def leen fonctionnaire xam nga boo nekkee soldat sa ba bëriwul sa salaire bëriwul léegi nag boo boo boo engagé nekk adel da ngay am par exemple daanaka salaire enseignant ngay am léegi ñooñu nag état mënut a jël deux personnes yëpp te un an bi trois comptes cinq ñoom daxar baa ngi trois comptes bu nekk mën na deux mille daanaka et quelque léegi nag man ba ñu jëlee trois cent personnes exemple ñi ñibbi seen kër bàyyi man ci laa bokk. Hmm. jëluñu moom ñu libéré mais nag bu ñu jox nañ ma certificat bonne conduite ne ma am nga droit defi concours bu la neex. non demoo def ko. man def naa def naa ci li def naa ci def naa ku laa xamante ni tubaab tubaab bon pour man dama am dama am dama am befam arab am diplôme bac arabe bi mu libéré tag concours kii xew quoi concours adjudant adjudant police police adjudant bi adjudant police. Mhm. ma dem ma dem mu jafe-jafe quoi ma dem def heure mu débajee gars yi rocc sama sama diplôme ñu ne baaxut la <laughs> diplôme diplôme ah, diplôme mu arabe temps euh, état bi reconnaître bu diplôme mu franco arabe mais diplôme yi njëkkoon am boo ñu suñu jamono mënu ma non ci suñu baaxut heure mu débajee ñu ma débajee ko sa gendarmerie fi fi fi fi ma demoon caserne di débajee. Mm. ñu bi joxaan ma ko ne ma sëñ am nga formation bu solide mën nga mën sa sa sécurité bopp. voilà